Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di leen balu àq te di leen bal àq di leen jéggulu guddi na nag je pense que euh, ndegam ci man rek la guddi waxatuma laak yéen waa Sénégal sama mbokk taaliba yi sama mbokk murid yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax mu mel ne sànq dama seetaan sëriñ Sylla Baye Fall ñu invité kowal wal fajri mu mel ne dañ koo yebal ku ñu yebal ne ko boo demee jëlal sëriñ Muntaxa def ko sa doomu bàjjan boo ko waxee li la neex wax ko li ñu neex defulewu ci kawam num la neexee ak noo ko santere ba pare ñu jox la paasu màkk ak devise loolu lay niiru néew ma moom la waaye dama ne loolu lay niru sëy se la Baay Faal danga décevoir ñu bare bari man sax duma wax Baay Faal Baay Foo laay wax euh, kàddu yi dañuy fexe suñu kem kàttan mu ànd ak yar ak teggin ndax am na fooy tollu ñépp lay déglu kon li ngay wax day war a am yar ak teggin waaye sañ si la danga laal ki ñépp bëgg danga laal jàmbaare lislaam danga laal sëriñ Touba Cheikh Muntaxa sëñ si la mënoon nga dem fooyi ci say moroom xoolal ci sa nawle yi xoolal kenn rek lay jël comme exemple duma jël ñaar xoolal sëriñ ji Mbay Peex loo ko mën di waxal xëy na danga naan dafay politique jëm ca kambe te loolu c'est droit le plus absolu te gis nga bi ñu ko meree naan dafa farak makeeg nangam sàngam dafa amaat woyof gu toll ne ñëw baalu ak daal ne awma ku dul muritu sëriñ Tuubaa yi te bëgguma ngeen mer kon xëy na waruma woon génn di jubile kon maa ngi leen koy tuubal ndax daa tax dara jaam wàcc déedéet daf ñoo won ne euh, njabootu sëñ Tuubaa gi su ma nee njabootu sëñ Tuubaa gi mooy murit yi moom la gën a bëgg àddina euh, bi fi mu toll ak Sénégal fi mu toll concours gën a bëgg sëñ Muntaxa la concours gën a wekk sëñ Muntaxa la aka moo neex a bëgg ak ay jàmbaar ak ay góor lépp lu ñuy xool ci as gor mi ngi ci Cheikh Muntaxa Bachir waaye dadi dafa am ñoo xam ne bëgguñu gis bëñ bu nit ki lawetee bari jàmm baax lool bari yërmande lool dañ koy def doomu bàjjan yow bu dee danga ne sëriñ bi bu la demloo ca tool ya nga dem ca tool ya boo demee ca tool ya sa njariñ la koo fi dégg mu raw maam Cheikh Ibrahima Fall ca tool ya la daan dem sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ca tool ya daan dem sëñ Mbay Sarr Jasaaka ca tool ya la daan dem képp ko fi tudd muy góor yàlla ca tool yàlla daan dem ca tool yooyu kat bañ ca demee ba noppi seen njariñ rekk la leen jural waaye yow dangaa demuti tool ñun xamuñu la ci lu dul wër di yuuxu ñun xamuñu la ci lu dul wër rekk di topp kër jàmbur yi yendoog ñoom wax leen lu leen neex bu bu guddi jotee ñuy jox la dara nga dem yóbbu sa kër waaye loolu dara nekku ci c'est pas méchant waaye ki ñëpp bëgg laa làkk bi nga xam ne de par ñu war ko respecter de par sa sagesse ñu war ko respecter sëñ Mountakha jaloore ji ma def néew ma kenn mësu koo def waaye néew nañu ko def xalifa sëñ Touba boo gis ak la muy tombeel sëñ Mountakha mii Covid bii fi am lépp fay dale ko màkk laa wax ba Sénégal jumaa yeeg jàkkee lépp tëj sëñ Mountakha mësta tëj jumaam ji di julli ji ajjuma di ñu won daf ñuy jàngal ndax mën naa toog këram julli fa muy taw bu doon tawi xeer sax day dem julli ji am lu ñu wan di ñu jàngal dëkk nag ci di ñu wax lu baax dëkk ci di ñu tegtal yoonu baax sëñ Muntaxa mii ku amul ay dog ñaanal ko mu gudd fan te nga màndu ci moom sëriñ si la am nga njaboot am na kàddu yoo xam ne bëgguñu ko yëkkati jëmale ko sa kaw waaye tudd nga ku bari njaboot tudd nga ko am njaboot lool sëñ Muntaxa njabootam gi du njabootu deretam rek murit yëpp la njaboote sëñ Muntaxa dafa am unanimité jullit yëpp a ko bëgg chrétien yëpp a ko bëgg tijaan yëpp a ko bëgg laayeen yëpp a ko bëgg foo ko sëñ Muntaxa day dalal xel foo ko seen bëñ yi ngay gis bëñ yi rekk ngay gis mbàkki bal mu ree la mu ñam gu neex googu mu dala sa xel waaye aka wex xat ci biir gis nga yoon wi lépp lu ci rax tey niru niru lu sëñ Bàmba la waxloo bis boo xam ne ci lay nit ñi sukkandiku ba xam ne yow mii doo murit sëriñ si la dinañ la duumata suñu loxo du la laal ndax danga lal ki ñu yaakaar àddina ak li nga wax sëñ Muntaxa joxar bi ko danga tudd sëñ Muntaxa ñeneen ña dang danga leen cee laawaale rek mais sëñ Muntaxa moo la taxoon jóg sëñ si la Baay Faal barki Cheikhul Xaddim dootoo ko defati màggal gi nit ñi dëgmal kenn ku ne di wut mbégte sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa nañ ko santalee yàlla yow defoo ci dara lu dul tàngal xolu murid yi nga dem ci tele ba nga xam ne àddina bépp dañ leen bàkkee ci télé opposition nga taxaw fa yekk fa sëñ Muntaxa loo xam ne du woon tem ba yow ka la invité gàgganti na la ba tàyyi ne la colinu Baay Faal moo taxaw ñu invité la waaye nga dëgër këcc rek ne yow sëñ Muntaxa ngay dal sëñ Muntaxa mooy sa morom dootoo ko dolleeti dinga ko tuub te billahi lazi la ilaha illa ko tuub sëñ Muntaxa nga def morom sëriñ Touba ca kaw suuf jàmbaar ju mel ne sëñ Muntaxa góor yàlla bu toll ne sëñ Muntaxa doomi sëriñ Basiiru bi xam nga baayam kooku bi mu ganee àddina la naqaru la naqaru murid yi jeex kookoy mbégum sëñ Touba moom sëñ Bachir Fatuma du maam sëñ sëñ Muntaxa ñëw boole sëñ Bachir boole sëriñ Touba muy ñaari leer nga ñëw attaqué ko nga ne danga koy yedd yeddoo sa baay yeddoo sa ndey ana say million loo def ci jumaa yi université yi loo ci def ana lu ñu tabaxal yoonu murit nga dugal ci say million mu siiw nit ñi xam ko lu dul xëy toogaanu masaalik yow fii képp ko topp ci ginnaawam la tax ñu topp ko Serigne Touba yow nga ne yee yaa am fit yow yaay dem di attaqué sëñ Muntaxa dootoo ko dolli laa la wax dangeen ngeen di bàyyi ba nit ñi ne ci yeneen vraiment ne ci mbigte ne ci wàccaay di di di enjoy ngeen dugg wax seen waxi xamadi wax seen waxi réewande ñàkk yar ñàkk teggin xamee luñ la dara lu dul yuuxu yuuxu ne ngaññe man ñaanuma yàlla am bàyyi boobu ñuuxu ne ngaññe ubbi say gémmiñ kese lii de laa la xamee ci yoonu murid waaye ñu nangu la ndéem yaa ngi yuuxu ngir sëriñ Touba rek nangu nañ ko waaye ndekete am na lu ko lal ci biir sëñ Muntaxa nga def morom sëñ Muntaxa du nawle sëñ Muntaxa du morom sëñ Muntaxa sëriñ Touba la sëñ Muntaxa zéro foot sëriñ Touba gàcce ngaa la ma sëñ Muntaxa gàcce ngaa la ma sëñ Muntaxa amul lu ko nit di yeddee de amul lu ko nit di yeddee de matal na sëkk matal na ba ba ba yéem nañu ñun ku nekk bitim réew te jaaxle sax da ngay da ngay daw ñëw ci sëñ Muntaxa tereg Ramadan bañ ko jàppee doomam jaaxle mu jaaxle doom ji bi mu ñëw ci sëñ Muntaxa mu ñaanal ko lañu ñu libéré bàyyam mën nga ci lim nag junni yoo xam ne benn bokk ci ak sa moroom yow nga jël sëñ Muntaxa def moroom def sa doomu bàjjan ah da nga réewa ah? da nga réew te billaay réew da réew te billahi da nga réew barki sëriñ Tuuba danga réew te dinañ ko faj dinañ ko faj bu baax a baax a baax a baax di ko tuub wala sox bi dana la dal di ko tuub wala bukki bi dana la mat ni nga amee njaboot ami soxna ami doom te ñun ñii lépp luñ la bëgg a wax ñi nga am yar gu toll ne di leen sóoraale ñoom waaye yow amoo yar gu toll ni sóoraale ne benn leeru sëñ Muntaxa benn doomu sëñ Muntaxa benn taalibe sëñ Muntaxa mën na laa lijjanti ci 24 heures xamoo loolu yow mënoo réer Sénégal amoo fukki kër amoo ñaar fukki kër foo jëm ban avion ngay jël ak fooy daw yow murid yi buñ la bëggoon chefaay ana ana loo ciy man lu la sëñ Muntaxa def sëñ Muntaxa moo la dese dama ne billaahi wallaahi wataalaahi di ko tuub walla lu rëy lu bon dana la dal xamadi ngeen réew ngeen yaradi ko ngeen ci ay magum jëmm yu ñàkk fayda yoo xam ne apporté lu ñu yoon wi lenn lu dul làmmiñ wu rëy wër di kaaje wër di yalwaan te yow boo yalwaanee sax doo ko yóbbu sëñ Muntaxa ne ko jënde ko saako ceeb dollil ko dongo yi nga toog ci digg àddina nga ne dangay yedd sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dee su ko yedd sëñ Muntaxa ay jaamam lañu def ñuy digal ñu def mu tere ñu ñu bàyyi lenn rek lañu desee sëñ Muntaxa di julli di woor di wàcc kaamel di ñan yàlla suñu boroom mu rus ñu ci moom guddal aw fanam sëñ Muntaxa yal na gudd fan sëñ Muntaxa yal na gudd fan ak képp ku ko koy yéene waaye képp koo xam ne yaa ngi jël wax ju safaanoo te nga ne murit nga boo doon murit sax garaawul waaye nga ne sëñ Tuubaa nga yaakaar bu tuddee sa bopp Baay Faal benn Baay Faal bu ma sa doxalee ne amul képp ku ko ci def sox bi dina la dal bukki bi dana la mat te ñi ma xam xam nañu fa may waxee boo ko tuubalee sox bi dana la dal bukki bi dana la mat yal nañu yàlla defal jàmm dama war a liggéey léegi ci guddi gi il est 23 heures daanaka waaye mënuma ko muñ xol murid yëpp jóg na murid yëpp seen xol tàng na sëñ si la Baay Faal sa Baay Foo yal na la merum murid yi dal ci barke 18 safar gi à moins que nga tuub ko boo ko tuubee day ko tuub ñu jéggal la waaye sëñ Muntaxa mi dañoo ñàkk loolu sago ci moom dañoo ñàkk sago lool ci moom Basiiru Faatu Madu maam ma ca péncum boppam sëñ Muntaxa moo baax moo jàll baax sëñ Muntaxa moo amee yar ci mag sëñ Muntaxa moo bëri xam-xam sëñ Muntaxa moo bari sutura la ko sëñ Mamoor daa waxoon sëñ Muntaxa boo ñëwoon ci moom kaala woo kaala gu ñuul gu weex gis nga lu weex loo lay ci sa kaal ba kaala ga loolu rekk lay xool xoolul leneen ci yow dañoo yori doom war leen a yar waaye am nañu yeneen kàddu yu ñagas yoo xam ne mën nañ ko yëkkati teg ko ci sa kaw bu baax a baax te dara duñ ci fekk waaye dañoo bëgg rek suñu njaboot gi di dañu xool di roy ci ñun waaye di nga daje keneen ku dul saalihaati salaam dana la wax leneen lu raw lii ma la wax ndax ba tey damay laabisoo pareewu ma ak yow damaa ñëwoon rek di la nuyu di la wax ne la tooñ nga murid yi ba fa tooñ yem te barki sëriñ Saaliyu Mbàkke dinañ ko faj dinañ ko faj ba nga xam ne faj nañ ko te barke Sëriñ Saliou dinañ ko faj te su ma la nee dinañ ko faj rek war nga ko gëm say nelaw dana néew de fan yi say nelaw dana néew lool cëm war xas yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk fayda am ko tax xamoo ko bañ koo am sax a ko gën am ko tax xamoo ko bañ koo am sax a ko gën doome tuskare yi ngeen doon yéen a bon yéen a bon yéen a xam nu ñuy bonee cim